Iran Ndao bu moytuwul euh, dina dem ci euh, kaso bi wala boog mu dem jàkkaarloo ji ak euh, yoon depuis nag fan yi la génn Euh, sortem yu mujj yëpp euh, da gis muy attaqué xalifa général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour li tax ba jamono ji ñu toll nii euh, ay plainte yu bëri ñu daal di koy déposé ci kanamu CNRA mi nga xamante ne nii moom mooy jiite lépp lu jëm ci wàllu audiovisuel fii ci Sénégal en tout cas ni ki tey ji ci RFM la ci dëggal xibaar bi ni mel Babacar Diagne mi nga xamante ni moom mooy président wu conseil national de régulation de l'audiovisuel Euh, di CNRA moom moo ko dëggal ne jamono ji nga xamante ni maa ngi ci euh, Maroc gis nañu ne am na ay plant yu bari bari yoo xamante ne ni euh, déposé nañ ko ci tuuru Iran Ndaw bu ñuy xayma sax mu ngi toll ci fukki plainte ak juróom lépp nag ñeel rek. diffusion yi nga xamante ni ñoo ngi koy def ci euh, réseaux sociaux yi ak sax ci télévision yi rawatina ci euh, seen TV euh, jóge ko ci Bougane Gueye Dany di yàq lu mel ne xebeeg nga xamante ni boo di xalif général de Tidiane li ni mel nag Tidiane yu bëri nag wudu ko te aussi ñoo ngi koy manifester seen naqar googu ba tax na ñu daal di def ay plainte jëmale ko ci waxtaankat bii di Iran Ndaw mi nga xamante nii lu bëri ci ay sorties moo koy defee ci seen TV Babacar Diagne njiitug Sénégal li xamle ci euh, plainte yooyu mu di li di mel dëgg la ndaxte moom recevoir na ko te tamit euh, jokkoo na ak ki nga xamante ni mu di Bougane Gueye Dany pour avertir ko ci euh, coowuk Iran Ndaw mi nga xamante ne nii moo ngi wax lu ñaaw ci xalifa général de Tidiane waaye Bougane Gueye Dany li mu xamal rek directeur général bu sénéral bii di Babacar Diagne moo di engagé wu ma benn yoon ci arrêté ay position wu nit ci ay kàddoom donc bu lépp loo xamante ni nii Euh, ki nga xamante ni moo di Iran wax na ko moom la engagé donc aw ma di ko interdire ay position personnelle am li ci des nag euh, Bougane Gueye Dany moom euh, fi mu toll nii position boobu la jël Babacar Diagne mi nga xamante ni mu di njiitu Sénégal li mu xamle tamit ci RFM moo di kon nag comme que noonu la demee moom dina defante ak ki nga xamante ni mu di Bougane Gueye Dany ndaxte temps d'antenne bi muy jox bu ki nga xam ne mooy Iran bam ci wax lu ñaaw xalif général des Tidianes loolu mënuñ ko seetaan ndaxte ci réewu jàmm la ñu nekk te lii mën na yëngal réew mii ba tax na daal moom bés bu ñëwee ci week-end ci Sénégal dina daal di saisiraat ki nga xam ci ne moo di Bougane Gueye Dany mu jël ci décision wala bokk mu daal di sanctionné télévision bi di Sen TV cool yi nag mu ngi bëgg a ëppi loxo ndaxte ci week-end bi sax collectif Daara Mam Maodo ñoom ñoo ngi waajal benn point de presse boo xamante ne nii danañu ko fa fas ne def euh, pour tontu ki nga xamante ne moo di Iran Ndaw ñoom nag ñu nar ko amalee ca mosquée Santhiaba rue 17 euh, angle 22 Médina ñoom euh, collectif bi ni mel ci euh, coordination bi imam Jabel Kouaté la ñu xamle moo di Bougane dootuñ ko Iran Ndao dootuñ ko mayeti dara ci kàddu yi nga xamante ni ñagas na lool mu koy teg ci deru xalif général di Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour coow li nag fi mu toll nii moo ngi bëgg a ëppi loxo ndaxte lu ëpp 15 ay plainte Euh, déposé nañ ko ci kanamu Sénégal ngir rek diffusion yi nga xamante ni ñoo ngi koy may euh, Iran Ndaw mu koy euh, am ci réseaux sociaux yi ci yenn chaîne YouTube ak i tamit ci télévision bi di Sen TV mu ci yàq lu mel ne xamee xalif général de Tidiane loolu dootuñ ko nangooti ba tax na daal Babacar Diagne moom jël na ci position ne lii dana dakk nag ci nii wala ci naa doonte buggaan gi dañu fi mu toll nii moom jëlu ko ci benn position li ni mel nag euh, tax na daal fi mu toll nii euh, réseaux sociaux yëpp turu euh, Iran Ndao mu ngi ci. tasaaroo ci fàttali rek collectif bi nga xamante ne lii moom moo di Daara Maam Maodo ñoom fas yéene nañu def seen point de presse ni ki suba waaye tamit bëri na ci ay jeunes Tidiane yoo xamante ne ni dañu mer ba futt ci Iran Ndao mi coow li nag bu dakkul bu moytuwul euh, fa muy mujjee ji du neex ndaxte euh, fi mu toll nii euh, Tijaan yi jël nañu position bu baax a baax ci kanamu Iran ndaw ne dootuñ ko mayeti fenn fu muy yëkkatee lu ñaaw di ko teg ci déru xalif général de Tijaan coow li ni mel nag day soog a démarrer rek fa muy mujj ji xamaguñu ko waaye ak lu ci mënti xew enquête 221 dina ci ñëw ci na mu gën a yaatoo liy tënkali rek moo di lu tolloog euh, fukki plainte ak juróom déposé nañ ko ci kanamu CNRA te li directeur bi nga xamante ni di moom moo ko jiite di euh, Babacar Diagne di euh, président wu conseil national de régulation de l'audiovisuel di CNRA moom ci boppam moo ko dëggal ne 15 plaintes déposé nañ ko te ni ki tey jii rek. Euh, mu ngi ci lim ci jot kenn xamul lu mu toll lépp nag euh, ñeel euh, Iran Ndao mi nga xamante ne nii daal ay kàddoom temps yi ñagas na lool ci kanamu xalif général des Tidianes li ne mel nag bi mu ko donné ak Bougane Gueye Dany moom daal tontu ko lu neex lim ko xamal nag moo di loolu ay position Iran la mënuma ci dara waaye nag moom Babacar Diagne mu ngi xamle ne bu dellu see Sénégal gii ci week-end dana régler loolu ci digganteem ak Bougane Gueye Dany arrêté Iran Ndao ñu daal di coupé signalu Euh, Sen TV mbokk yi lii dinañ ci ñëwaat ci na mu gën a yaatoo ñu leen di ñaan ngeen abonné ak bàyyi xel seen chaîne YouTube bi d'enquête 221 jëf